Yeah. toujours dans votre acte du jour de ce 17 septembre suñ fa jógee dañuy dem fële ci champ de course fekk ci fa Serigne Moustapha Sy des Moustarchidine di leaderu parti pour ginnaaw différent bi dox ci digganteem ak di premier ministre en tout cas les loo xamante ni daal Serigne Moustapha Sy xam na ko di président Diomaye Faye en tout cas moom rek moo ko jaaxal ndaxte li nga xamante ni daal nit ku baax la nit ku dëggu la nit ku am la waaye kii nga premier ministre mon ko daal di sonal ki ko xam ne di Serigne Moustapha Sy Al Maktoum di leaders li nga

moy jomay fay ginnaw mom midi le la marabu si situation bi nga xamanteni jomay mi ngi koy dund te amul ben souci jëmele ko dal ci dernière ñi nga xamanteni dafa melni dañ ko freiné jëmele ko ci élan discord ànd ak ki nga xamanteni moy président parti Pastef ginnaw bi nga xamanteni nak ki di jomay fay mom ci bopam tiitaange la ko indil jëmele ko dal ci nit ki la koo xamante nit ko bax la ginnaw bi nga xamanteni lépp lo xamanteni dal mi ngi koy def jàng na ko jëmele ko dal ci ben souhait bo xamanteni du dara lu maître mettre réew mi jëmele ko dal ci ben rampe de développement bi nga xamanteni suñ ko étudier jëmele ko dal ci ben fond des choses du don dara lo xamanteni ben phase la bo xamanteni meun nañ ko comprendre jaarale ko dal ci conseil yi nga xamanteni da fay continuer jëmale ko ci lancer li nga xamanteni moy bien ou réew mi ginnaaw bi ñu ni dal guide spirituel moral bu parti de l'unité et du rassemblement des pures du Serigne Moussa Sy Al Maktoum def na ben déclaration ci occasion li nga xamanteni moy célébration juddu Yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofa champ de course nañ ko déglu ci dellu si ñewu ñu lan dafa am ñoo xam ne ci Sénégal. boo jógee ni ci mustarshidin yi laa jëm duñ la may jàmm luñ la mën a wax pour décourager la dinañ ko def mais jaroo ko mustarshidin soxlawul kenn na yàlla defal na ko lépp ba noppi waaw waaw bi ci des itam ku defa ne da nga ñuy chantage ñun bu ñu la chantage yow doo ñu chantage ki may waxal loolu moy Sonko ci bopam wa man mako wara chantage ndax bu dee dund ba tal lii yàlla ak sama taxawaay tax keroog bañ ko jëlé prison mu nekk dans le comment ñu yóbbu ko principal man mi ma téléphoné professeur Watt Khalifa Babacar Watt ni ko taxawul ma Sonko mook Pape Alé Niang parce que ci liquider leen la ñu jëm te ëpp na bàyyi mu taxaw moom professeur bu ci sax du demati këram ndax surveiller leen rek ndax bañ bu fa jógee léegi ñu jar gannaawam def leneen kon nak bu demee ba yàlla may ko mu tal ko mu mel ni daf ñu ignoré maa ngi koy xaar ci législative kenn rek moo ma jaaxal mooy jomaay جمايكو باخلا تيك نانيت لو باخك لا يين مي كو خول لي خيو ديغا ام لو كومبراندر وا مي يالا موغي في دو في جوغي وا ن كونتيني ام يينم بو رافيت فيالاي جار ba mu réaliser li muy réaliser kooku kenn mënu ci dara waaw bu ko defee kon li la ciy reeloo moo di tappalekat yi léeg-léeg nga gis ku téléphoné ni waaw wax leen Serigne Moustapha waaw Sonko dafa am lu ma yóbbante ci moom ma bëggoon na ma recevoir ma ni ma waaw maa lànk recevoir wu ma kat waaw ba démb ba démb ba démb waaw na ko fi woote waaw waaw sonk moo ma yónni woon bu dee dooma mën recevoir nga boole ma ak capitaine nàngam nangam ay dàllam sax kenn séenu ko waaw bu ko defee comédie yooyu la war a bàyyi Sénégal changé na te une génération bi gens qui ñi ñoom ni leen yàlla binde nous leen yàlla binde mais ñun génération bi nax ñu yombul waaw tax kon yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo muy ay kaddu yi nga xamante ni sëñ Moustapha de des Moustarchidine yëkkati na ko jëmale ko daal ci kii nga xamante ni daal mooy président Bassirou Diomaye Faye nit ku baax la waaye kii di premier ministre du nit ku am kóllëre nit la boo xamante ni daf koy jéem a chantage loo alors que moom nag du ku ñuy chantage loo ndaxte depuis que mu jël nguur gi daf leen ignoré te ñoom duñu ku ñuy ignoré ndaxte barki démb bi nga xamante ni moom mii na dans le coma ci kaso ba ñu yóbbu ko foofa ci hôpital principal moom ci boppam moo woo kii nga xamante ni mooy le colonel kii di Babacar Gaye pour que mu assisté ko bañ ñu daal di koy faat donc moom sauvé na ko lu toll ci ñetti yoon waaye ba mu génnee ba tey amul benn yoon boo xamante ni jaar na fa ndaxte dëgg la daaw bi ñuy wut ñoom ñëpp ku ci demoon Tiwaawoon dem nga foofa ca champ de course ziyaare ji kii nga xamante ne mooy sëñ Moustapha Sy mais dafa mel ni que bi ñu amee lu ñu bëgg fàttee nañ leen nee na daal lii nga xamante ni daal mooy leaderu parti Pastef di premier ministre daf leen ignoré fàttaliku na sax ba xamal ni que daal que kii di premier ministre bi dal échappé na ñett yoon ci li nga xamanteni dal moy ay tentative d'assassinat suñu sukkandikoo ci ki nga xamanteni moy Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñu gën ko xam ci turu capitaine ginnaw lool dal ci suitu cadre yi nga xamanteni dal wajurum yëkëti nako mom Cheikh Ahmed Tidiane Sy di capitaine def na révélation bu doy war jëmele ko ci condition yi nga xamanteni moy détention bi ñu jàppee woon leaderu Pastef fofu ci kasso bi ginnaw nak suñu sukkandikoo ci actuel nouveau premier ministre échappé na ñetti yoon ci ay tentatives yoo xamante dañ ko waroon faat fofu ca pavillon spécial bu hôpital principal bu Dakar ginnaw nak bi nga xamanteni fofu lañ ko interné won ñi dal di plonger lepp lo xamanteni moy mooy commande ko dal ci grève de la faim bo xamanteni dal bu illimité la donc lepp ay cinéma la won ginnaw lool dal mom mi di premier ministre bi leader du parti Pastef échappé na ñet yoon ci ay tentative d'assassinat grâce ak ki nga xamanteni moy wajurum waajuram ju góor di Serigne Moustapha Sy di xalif général des Moustarchidine ginnaw bu mu ko relevé mom mi di capitaine mom mi don ko animé li nga xamanteni dal moy mooy gamu bi fofu ca champ de course ak waajuram jooju di Serigne Moustapha Sy en tout cas daal su dee sëy la nañ jàpp ne daal diggante kii nga xamante ne daal mooy le première ministre ak kii di euh, li di guide religieux bu Moustarchidine yi daf mel ni sëy bu tas la xamal ni ko daal moom mi ngi koy xaar ci législative yi en tout cas su dee ngor la wala kóllëre wanu ko ci dara en tout cas kii di Diomaye daal xamal ni ko daal nit ko baax la mu doon daal xamante ni lu doy waar